Salam aleykoum, salam aleykoum guys, j'espère que vous allez bien leen wax ngeen abonné chaîne chaîne YouTube Khady Pro l'officiel gars chaque jour qu'on dort qu'on se réveille y a de nouveaux dossiers. BRT bi daa burle maanaam daa saaraan maanaam daa wàcc yoon. maanaam bu fi kenn génn naan ñu BRT bi chauffeur ba patriote la am ngeen fitam am ngeen xam-xamam ñime ngeen bu fi kenn génn naan ñu chauffeur bi patriote la. paan na ko oto bi paan na bu ko kenn dàq nag damay araftu rek tam ñu dàq ko naan patriote la euh, gars yi seetlu leen benn affaire Ousmane bi ñu ko jàppee ba léegi vingt 2021 sax laay wax ba tey 2021 ba tey maanaam ñoom parti au pouvoir lu ñu sumbi mu am jafe-jafe seetlu mille vingt 2021 ba tey parti au pouvoir lépp lu mu sumbi rek am na jafe-jafe lépp lu mu dugg mu am ay gàllankoor kon ngeen xam ne da ngeen a téye ngeen xam ne da ngeen a téye jàmbaar ngeen xam ne dangeen ngeen a téye yaakaar yi askan wi ngeen xam ne da a téye ki jeunesse bi bëgg ngeen xam ni ki ngeen téye fi fi fi mu ne du palaasam encore une fois di waxtaan ak population bi waxtaan ak jeunesse bi Pastef dafa existe ba tey Pastef mu ngi dox ba tey Pastef fa mu nekkoon jógu fa ay décideur nan Pastef ak yoy yépp ay ndios la ndios na ko daan waxe ndios waye bu ndé ba ca ya ah, dafa exister raja nan Ousmane Sonko wala raja nan Pastef ci liste électorale yeeg raja nan ko ci liste yeeg seega c'est-à-dire yépp ay sondage la yeen yene set jeunesse bi bu ngeen ko noyalé mu noy bu ngeen lanké du de jeunesse bi yeen yéen a war a xam ne fi mu ne nii yéen a téye volant bi yéen a àppoo vent li ngeen bëgg mooy am li ngeen li leen naqari du am ci réew mi. parce que ñun ñooy fale ñooy folle ginnaaw yàlla suñu borom jeunesse bi réew yépp la nag partout dans le monde réew moo dem ndaw ñaay fale ñooy folle ndax jeunesse dafa am doole ci ci ci am réew parce que ndaw ñi dañoo nangoo bari macha allah ndaw ñi dañoo nangoo bari à partir de manam 18 ans 19 ans 20 ans 25 ans ba 30 ans 40 ans bo xolé aduna bi ñoo ci ëpp té ñun ñëpp tay ji d'accord na Ousmane Sonko moy suñu candidat buñ ci kenn jëlé buñu ci kenn jëlé buñu ci kenn jëlé Ousmane Sonko lañu bëgg mom lañu gëm mom lañu andal chaque jour dama koy wax buñu ci kenn jëlé gëm leen li ngeen gëm focus comme d'hab waaw wow. bu nu ci kenn jële li ngeen gëm-gëm leen ko bu leen kenn détourné gars yi wax ci suuf ak c'est que cest yooyu ay waxi dof la li ngeen gëm gëm leen ko te gëm ni Ousmane Sonko day nekk candidat 2024 Pastef dafa exister ku koy décider da ngay xott suñu xol yi formaté ko ba pare wala nga def lavage de cerveau sunu bopp yi fekk mënoo loolu mënoo décider Pastef point di len jox dig dajé ba ëllëg inshallah chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il y a de nouveaux décès